depuis lii di Covid 19 mu jógee si biir réew mi fii ñu bëri ñu ngi daal di def seen kéemtalaay ak kattan pour daal di tasaare xibaar ak nag jàngal nit yi ni ñoom moytuwee si Covid 19. kii di faatu Fatou Badji Cissé moom nag nekk na nit bu nga xam ne nag mbokk di ñu nekk di jàngal nit yi si Covid 19 niki sax moom mu ngi génne ay vidéo yu ab Covid 19 ak naka la ñoo fagaroo. te nag wax na ne lii di Covid 19 dara la lu am te nag fan yu néew yi nii gis nañ suñu ay mag yu bëri ñoom nag ñu ngi daal di faatu ci lii di Covid 19. te nag man lu ma yaakaar a moo di ne képp ku nekk su fekkee ne am nga yoon pour daal di tas xibaar ci lii di social media bi yow nag war nga si eh, taxaw pour daal di gis ne nga dimbali nit eh, yu nga xam ne gëmuñ ne lii eh, jàngoro bi mu ngi am ah, te nag nga jàngal leen parce que nag soo xoolee si biir Gambia bi fii ñu bëri ñu ngi fii gëmuñ ne lii di Covid 19 mu ngi daal di am bi loolu moo waral sax man ma daal di génn ah, pour daal di si dugal suma loxo di jàngal nit yi. te nag lii di nga xam ne moo di nguur yi ñoom luñ mën a def rek ah, moo nekk ni ñoom ñu teg ay loi ak ay sarta pour nit yi topp yooyu noonu mu ngi si nag lii di state of of you bii nii parce que nag soo xoolee léegi eh, nit ñu nekk di am Covid 19 eh, jàngoro bi si biir réew mi fii mu ngi gën a law dadam te nag man lu ma yaakaar lu waral nit yi sax ñu ngi gën a am lii di eh, jàngoro bi si biir réew mi dafa mel ni nag di xibaar bu di dem si askan bi jóge ko nit yu nga xam ne ñoo séentu mbir mi foofu nag moo daal di des. te nag ak nit yu nga xam ne nag dañ leen daal di ticcatu nit yu nga xam ne ñoo am jàngoro bi wala sax ñu nga xam ne dañ leen teg benn place di gestu seen mbir. parce que nag ñu bëri ñu ngi fa dañ dee am ay gàllankoor sax ñu ngi leen teg benn place te nag soo xoolee nit yu bëri ñu ngi fa nit yi dañ leen di faral di daw niki sax dañ leen waxoon ne mus nañu am jàngoro bii nii. loolu moo waral sax nit yu bëri ñu ngi fa dañu dee bañ a dem a dem ak def ak gestu seen mbir ni sax ndax am nañ jàngoro bii nii. lii di nga xam ne moo di nguur gi nag man ci suma gis-gis loolu moo nekk nag dañ daal di tëb ci kaw mbir mii mi niki sax mbir mii nu mu daal di door ñoom nag luñ am yëpp foofu lañ ko daal di dugal ba nag léegi affaire yi ëpp doole mënuñ see def dara. lii yëpp lu ko waral moo di ne lii di nga xam ne nag moo di xibaar a num dee demee moo daal di des parce que soo xoolee sax lii di nga xam ne moo di suñ njiiti réew mi sax moom a yàggoon na sax te génnut pour mu daal di wax ak askanam bi lu ko waral moo di ne njiit moo daal di des parce que si jamono bu buñ mel ni njiit yi nag dañ war a génn si daal di wax ak seen nit yi. kii di Fatou Badji Cissé nga xam ne nag moom li jàngale nit yi nag social media la ko dee daal di jaarale li ki nag li jàngal nit yi si lii di nga xam ne nag moo di Covid 19 ak sax lii di nga xam ne moo di Gambien yi parce que loolu nekk na dara lu nga xam ne sax moo ko daal di itteel parce que nag soo xoolee lii di nga ne man nag moo di man lu tax ma daal di dugal suma gémmañ si lii te nag nekkuma si biir réew mi fii waaye nag gis naa ne nag ma daal di def suma kéemtalaay kattan pour daal di jàngal nit yi pour nag ñu bëri ñu fa ñu mun see jàng tanga nyumuna a eh, chinchen bopa paske na kaso xole li di nga xamne modi gambe lu tori ci eh, junne nit ñu am nañ li covid 19 eh, jangoro bi ni